Uras Info. Ribari Gao. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du Tedegu. Notre force. Le traitement de l'info. groupe Budi URAS final concours Quranul karim ñu avons ko ci chambre de commerce bu Kaolack ci le treize bii ñu génn mooy tax biir réew mi ak bitim réew mi yëpp xam yëngu-yëngu kuréel gii ñu jugte muy kuréel goo xam ne li ko tax a jóg du lenn lu dut ñu ñàkk baat lool te ñu desal leen gannaaw bu baax a baax ci biir réew mi di Sénégal di ay arabisants ñooy ku sos kuréel gi ci loolu ki jiite kër gii di chambre de commerce bu Kaolack ak industrie di président Serigne Mboup dal leen ci buroom gannaaw bu mu loo jëf ju màgg ji nga xam ne def nañ ko lii la yëkkati ci ay kàddu. moo tax vraiment ñëw bi ngeen ñëw pour mu nekk lu lu lu ci man li ngeen di def tamit di jàng ba pare di jàngale dafa am solo xëy na ku mënta àndam ak Alxuraan su ngeen di boole ak liggéey dafa am solo te moo war sax ndax yonent bi sallallahu liggéey la def yonent waaye bi mu nekk yonent liggéey daan liggéey dafa amoon liggéey di liggéey lu ay kon ni mhm. gannaaw bu mu présenté délégation URAS bi Habib Dramé nekk ki ñu toftal ci coordinateur bi chargé de l'extérieur jaajëfal na bu baax a baax ci turu URAS kii di njiitu CCBM ci taxawaay bi nga xam ne waxtu wu nekk mi ngi koy jëmee ci askan wi ak teraanga ji nga xam defal na leen ko ci final bi mu ngi koy farafànceel nag taxawaayu URAS ak objectif am

ñii dañuy ci biir réew mi nekk ci ay yu bëri yu fa santé ko ak mm. kon arabisant yi comme ku mel ni yow misaal nga ci ku mel ni Sidy Lamine misaal la ci mm. nañu jéem a créer ñun entreprise boo xam ne mbooloo koy bokk mm. waaye dañ fexee réussir daal loolu daal mooy suñu défi bi mooy nañ fexee réussir ci mboolem sémb yi nga xam ne ñu koy naan boobaa léegi nag amaguñu suñuy suufi bopp waaye dañuy luwee poulailler dugal ginaar génnee jaay leen ci am ñu am ko ci def nañ dugal nañ fa ay bande def nañ fii ci Kaolack itam luwee nañ fa ay poulailler defar génnee def nañ ko fa noonu la ñuy ci wàllu Irak Info bi itam am nañu lu ñuy tuddee chaîne de télévision bu tudd Irak Info ak internet boo xam ne moom Irak Info la tudd hmm. Facebook ñu hmm. def ñuy information générale hmm. parce ci suñ biir am na ay journaliste comme Jibril nii journalisme la jàng Mauritanie ci université bu Mauritanie génn ku mel ni arabe mi dem def université Caire waaye dem du ñëwee ñu tàgg tàggat ci wàllu journalisme boo boole ko ci métier moom ngi fii ci booru Ndiédiène ku mel ni man mii dem def naa communication ak management du Maroc waaye man maa ngi nekk imam Thiès yor foofu ay daara ci jàngat ku mel nii Baara Diop mi nga xam ne moo nekk Alfayda mooy def day mboolum moo moom mooy suñu euh, mm. général mm. ci mbooloo bii nii moom bëggoon naa xaar sax jotaay bi ndax dafa jógee euh, Saint-Louis mm. ñëwoon fekkee Moussa Doxa bi waaye bi mu paree dem ak euh, daje bu mu war am ak inspection foofu moo tax mu delluwaat man nag ma xaar pour ñu fekkee daje bi pour gën laa mën a jërëjëfal comme ni ko suñu Omar waxee ndax keroog wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax bu ko defee nag mbooloo mi àndal comme ni ko waxee Oustaz Mokhtar Fall mi ah. moom ci superviseur général yi ci la bokk. Hmm. kii mooy superviseur général bi waaye moom moo ci kawam. Hmm. Oustaz Djibril Guèye moo jiite commission culturelle. Hmm. Oustaz Mokhtar Diouf moom itam mooy deuxième vice président bi. gannaaw man man maay premier vice président yor itam relation extérieure. noonu daal la ñuy liggéeyee. Erage production def na ay liggéey yu bëree yoo xam ne ni ko tuddee woon mooy. comme ni ñuy gisee bu weeru koor jotee ñuy sabooti diine ñi ci julli di fecc wala julli di lekk wala yu mel noonu. Mm-hmm. ñu créé maison d'édition xam ne dafay def production ci ay théâtre wala ci ay ay téere ak yu mm-hmm. bii ñuy wax ñu di bind téere boo xam ne ci maanaam Alaaji Abdoulaye dañ koy bind. Mm-hmm. bi mu jaar ci bàyyi mu dekkal ko tuddee ko maar bi. kon génération yi fi jaar yi ba fi toll tey. loolu liggéey nañ ci presque ci finition yi mu sol ci biir ñi ñoo ko yoroon. ci wàllu théâtre itam. am na yu jot a joué ci koor bi rek passé tuddee alkaati koor wane daal misaal mu uteeg misaal mi ñuy wan mm-hmm. loolu jëm liggéey nañ ci mu ngi ci suñu chaîne YouTube ko def di ko mën a seetaan mm-hmm. naaw bu mu ooyee ñëpp ñu koy jàppale ngir ñu ñëw teewee lii di ndaje mi président sëriñ Mboup yokk na si ne lépp loo xam ne URAS mu ngi ci yëngatu wala mu bëgg ko chambre bi dana ko accompagner jàppale ko ba mu réussir. commencé amul incha allah dañ ciy jàpp da ngeen damay wax Ablaye Thiam mi ngi toog. incha moom. Ablaye dañ leen ñu toog. li ngeen soxla ci jàppale ci agro business ak yooyu yëpp ñu def ko maa ngi am danaa ci am rek loolu ndax léegi la ma waa ANSAR li nisaaw ah. dama ma wax ah, ne ma fii moo leen jàppale hmm. bañ taxaw tey bañ am seen unité tey bi ci liggéey ñi wala ci ñaareel ba lu jëm ci production tamit hmm. la même chose hmm. mooy tamit ngeen xool ban partenariat ngeen mën a def ak télé bi fi nekk. même bu ngeen concevoir seen émission bopp. Mm-hmm. boo xam ne yéen a ko moom seen bopp. ñu am ko dugg dugalal ngeen ko sans problème ngeen di ko defal seen bopp. ci mm-hmm. waxtaan. Mm-hmm. lu mën a doon. li nga moom ci gën a neex nag mooy théâtre yi ngeen wax ci wér. loolu moom dama bëggoon ngeen bind ko. ngeen def ko bind ko def ko mu leer. man ma sponsorisé na ko mu changé doon. na nekk luy a reetaan. waaye nañ ko reetaan ba pare diine woo ko. Ah. ba nekk di ko reetaan mu ci biir diine mën nañ reetaan dama insha allah ndax yéen sax amoon nañu ko daan reetaan loolu daal moom sama projet la moom jàpp leen ko ngeen ko defee rek su ngeen paree rek ngeen woo ma man maa dem ak ñoom ñi ci des ngeen ngeen ngeen gis ko ak allah kon Ablaye nga def ko nga defal leen nga ñëw régulariser leen pour ñu am seen kayit ak seen yëpp pour mën a am lépp am problème ndax sàmm bi rôle loolu mën leen di jàppale jàppale leen wala wax ñeneen ñu jàppale leen insha allah daal moom xam nga l'islam boo ko jëlee fan nga lislaam du politique waaye lii lislaam dañuy politique. politique mooy lan mooy njëriñu ñoom. ndam yëpp nag mooy lan bëggee taxawal diine. dafa ñëw wax ak nit ñi. Ah, ko parce que nit ñi da ngeen di wan. kaay leen ñëw leen ci li ma gënal. xam nga politique dafa am keroog dama ko benn kii mu ne. ma ne ko nit ki da ngay di ko démarche ci politique. Mm-hmm. di ko jàppale. Mm-hmm. mais moom jàppale moo lay jàppale. benn mm-hmm. kii ne ma ne ma loolu du dara. jëlal alxuraan la yemoon noonu alayka an taslamu. xulaatu moon noonu alay islaam balilaahi yemoon noonu alayka an hadakum bil bu fekkoon tey demoon nañ ci logique. kii lay woo de la kañu politique kooku la dimbali. Mm, mais dañoo dem ñi nga xam ne dañuy dimbali koo politique. Mm, mm, ñu jël yàq yoon. ba nga xam ne sax bu nit di wax sax ñu naan duma politique duma politique te politique amul lu ko gën a noobu. ndax euh, euh, waaw maa ngi fondance faire ko sudaat bi. politique mënoo jëriñ doomu aadama. Euh, li ma ci dugal nag. xam ngeen moom mooy bëgg a soppi. chambre def liggéey yu mm-hmm. pouvoir décisionnel mm-hmm. mooy chambre de commerce mm-hmm. pouvoir ressembler pouvoir euh, pouvoir boole ak pouvoir influence da ngay waxoon dama la bu ñu pouvoir boo xam décider mais da nga décider loo ne ci këram ci ni muy ci ni muy war décider kon ci ay li li ñu jàng. Mm. waruñ leen ko bàyyee rek di kon man tamit li nga wax maa ngi la ci encouragé. nga gis ma nga ñàkk maa gis. taxawal ne am sëriñ bu ko taxaw si. ndax lii yëpp ñuy coona suñ tegawoo ci yoon. kenn ku ne fa nga toog danañ ko réglé. te doo gis sax kay meer. incha allah laa am yéene. xam naa ne yéen mën ngeen ci lépp lu ngeen man ci saahir ak ci baatin ak ci lépp daal mën ngeen ñu fàttali ne. groupe Bidi URAS mu ngi yëngatu ci bari URAS info URAS production URAS business ba URAS Education. Mohamed Arabi Kaulak URAS info. URAS info. ribari gao Tewor. URAS info. l'info à temps réel. URAS info. Djanga yu notre force le traitement de l'info.